ñun leen nampaleur xam nañu nu ñuy jaaree ba nàmp donc li gën a nice te jaar yoon mooy Cheikh Ahmed xale bi dama ko bëgg a seex nga laaj ma su munee nekk man maa xam su mënul nekk ma ne la bàyyil mu sedd mais ba ñuy jëlante numéro yëguma ko boobu ana suñ xaritoo mhm. bi mu koy invité fii la ma bàyyi suma kër waxul ma dara ana suñ xaritoo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 rabbi shrah li sadri wa yassir li amri de uqdatan min lisaani yafqahu qawli maa ngi nuyu site bu mag bile ak képp ku leen di seetaan di woo askan wi ci ñu like ko partager cliquer ak commentaire ndax loolu moo leen di may doole mhm. te bu ñu amee doole rek information yegg fu ne ndax ay ndaw yu am itti rek ñoo ko moom mhm. di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan di ziyaare ruuxu mawlaana alhaji Cheikh Omar di ñaan leer ak ngir mànda yàlla ci kawam mm-hmm. waaye yàlla boole njaboot gi te teg ñu ci yoonum bëggoon mm-hmm. jërëjëf mm-hmm. bi fi may njëkkee euh, mooy euh, euh, kii di Kaliphone bi mu génnee ba léegi gise ngeen wala gisante leen gisante waaye dem naa këram fekk mu jàpp ma dellusiwaat waaye gisante déggante ni tamit te bi mu nekkee ci kaso yi ñu ngi doon déggante. Euh, bi nga demee këram euh, naka nga ko dundee foofu ak famille bi. miinante wu ak famille am nag te dew ma woon seeti famille man ci moom laa demoon. Mhm. parce que mooy suma xarit. Mhm. mais famille bi xaw ma ci kenn kenn xamuma ci. Mhm. mais relation yi amoon ak jaxasoo bi nga xam ne werante yooyu amoon na ci famille bi bi nga demee mbaa juru fa woon genre coow yooyu. non non dew ma woon ci ñoom man dama dugg nuyoo ana Kaliphone dafa génn mu ngi fii ñu xool xool gisuñ ko. ma woote woote jotuma bi ma ñëwee la ne kenn moo téye woon téléphone am naa ko xaar mu ngi ñëw ma ne ko ñibbi naa beneen yoon dinaa ñëwaat incha allah fa la ñu yem. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. d'après ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy actualité bi ñu gis Kaliphone euh, sortie yi nga xamante ni def na ko mën naa ñëw ci démb rek sortie yi nga xam ne def na ko ak li nga xam ne développé na ko bi nga ko seetaanee amaa may dugg ci sujet yi ban jàngat nga ci am. amu ci benn jàngat parce que xaritoo moom mooy. Euh, bu la nit ki defalee lu baax nga gërëm ko bu juumee nga jéggal ko mm-hmm. aw ma ci benn jàngat mm-hmm. aw ma ci kàddu yi tamit mm-hmm. ndax maak moom ñoo daan ànd xamante ñu bu baax te li coow li bari bari musuma toog ci télé ne lii la ñu seq fii leen jaar ndax ñun ñaar la woon moom bu toogee ci tele wax ko ma noon xaar mu wax lépp lu ñu seqoon mais bu cofee la ko arrangé wax la ca des man suma réponse en tant que Cheikh Ahmed mooy mel ni dégguma ko rek. Mm-hmm. parce que ñett day dundal ànd. Mm-hmm. jëllale jéggale ak muñ loo mën a faj. Mm-hmm. waaw jëllale bi mooy mel ni déggoo. jéggale bi mooy bu la naqaree nga muñal ko. muñ loo mën a faj war koo mën a tontu mu leer la ne doo ci gañe dara. ndaxte ka nga doon àndal muy neex ngeen di bëggee. mu dugg prison nga am ci taxawaay bu rëy mu génnaat wax la nga delloo ko su boobaa damay perte. te man je suis très intelligent pour loolu. d' mu mel ni man mosoon naa la fee seet si euh, di waxtaan ak yow nga ni ma fi mu toll nii dossier Kaliphone ak famille mënu ma ci sori parce que damay jël sama garde toog di xaar mu génn kon dafa mel ni lii nii danga ko réservé woon xaar ni tôt ou tard fii lay mujjee. waxtaan naa ci sumay nit. Mhm. fi mu jaar nii laa ko tëral. Mhm. te euh, ñoom xam neen ko. Mhm. lii laa doon xaar. mais bi mu ko defee ba pare man tam dama am cër mooy dama war a def ni ma toll. ni ma toll mooy lépp lu mu wax dëgg la nam ko waxee dëgg la. Mm-hmm. le reste man xam naa moom xam na. Mm-hmm. te duma may ki soccu woon war a reetaan am lu mu ree mm-hmm. ndax ku ma xam xam kalifon xam nga ne gënut maa ñeme wax. gënut maa sañ. dàqut maa wax te liñ séq yëpp waxu ko. mais maa ngi doon xaar honnêteté. ak cubalo bi mu doon. su toogee ci télé bay wax mu wax lépp. comme mënta wax lépp nag. bu ñu tesee man leer na ma ne duma sëgg. ndax moom xam na. Mhm. man xam naa. Mhm. d' accord tey bokk na ci nga xamante ni wax na ko mu nii euh, dafa mel ni yow da nga yàkkamti woon dugg kasoom parce que yaa ngi jubilé di def say live di jaay say garab di def say direct yàgg Pawlish yàkkamti woon que ni moom mu dugg ba nga dem di jubilé. walaay dégg naa lépp ni nga ko déggee laa ko déggee. Mhm. mais maa ci amul kàddu. ndax damay damay dafa am lu may daw. mais moom xam na man xam na nit ñi xam ne na gënul ma saaf làmmiñ. te liñ séq yëpp koo wax. man nag su ma seexee suma ma moromi góor dem ba mënu maa wax lépp duma ma mm-hmm. cof la ma arrangé wax ko nam ma neexee. Mm-hmm. je préfère ma garder ko. Mm-hmm. walaay aw ma kàddu ci waxi Kaliphone. lépp lu mu wax dëgg la nu mu ko waxee dëgg la. mais ñun ñaar suñ tasee ba caméra yu fay. xam nañ lañ seexoon. mu mel ni tamit bokk na ci li nga xamante ni dégg naa ko ci muy développé que ni xaritoo bi nga xam ne doon ngeen ko yow yaa koy mbuboo mais moom xaritoo boobu noonu doonu loo xam ne gëm na ko parce que moo la doon dundal moo la yor moo yor sa njaboot moom moo doon perte ci yow xaritoo boobu noonu noonu déwénu loo xam ne nii moom lu mu gëm la yow yaa ko jàpp. waa dafa baax xam nga nit di dundal xaritam lu baax la le fait que ma xaritoo moom mu may dundal rek yàlla na ko yàlla fay yiw mm-hmm. na ko bu mu bàyyi di ma dundal ndax yàlla mu ne ku dundal suma jaam ma la te man jaamu yàlla la mm-hmm. maa jërëjëf encore une fois ci xam-xam bi ma jàngal mm-hmm. yére yi may solal lekk yi may joxal lépp lu ma Kaliphone defal ci yiw yàlla na ko yàlla fay ne bu caméra wàccee ñun ñaar xamante nañu Ahmed nag xam nga gars yi mënuñu fay ñëw nag toog fii nga doon taxaw di wax di takk rajo ñu ñëw fii sa problème yàgg Mara Niass nii la commencé woon fa mu jeexee sa problème yàgg Pawlish fee la commencé woon nii la jeexee nga ñëwaat fii ci Kaliphone ak yi nga doon wax yëpp tey nga génn li ñaan weesu di ragal setal sa dell la nga bëgg a taxaw fii bëgg a jënd glace naan noo garaaw li mu wax lépp am wax ak nit ñi. maa ngi wax ak ñoom mais li ma bëgg a wax laay wax ak li ma arrangé man duma ma toog ci internet di waxanteeg suma xarit ku ne denc sa xarit. Mhm. non non non njumte day am mer day am. mais tey mais tey day am. mais tey foofu bu amee foog grandeur am. Mhm. mais kali ëpp ma fit dàqu ma wax gënu maa ñeme mbambu. mais tey foofu mu wax noonu te yow dossier bi nga teewoon ci loo xamante ni tey euh, mënoon nga ko wax gën dugal mais da nga taxaw ni man sama xarit la nga doon témoigner tey moom mu taxaw ni yow dugg kasoom bokk nga ci ñi ko sabab parce que bi ñu taxawee gendarmerie ci gendarmerie bi yow yaa ni gendarmerie bi moom moo dóor waaye man dóoruma. li mu wax yëpp dégg naa ko la ma cee tontu mooy lépp lu mu wax dëgg la man jéggal naa ko jëllale naa du ma fayu suma xarit la dama ko bëgg li de laa mën a wax waaye la mu wax na ko déggee laa ko dégg fii laa toog en direct bi mu commencé ba bi mu daaneele oote naa direct wala if oo na ma ma wuyu ko ñeenti kàddu laa wax maa leen di nuyu di nuyu Kali lépp lu mu wax dëgg la su dee dama ko bëgg yàlla na ma yàlla bëgg su ma ko bañee yàlla na ma yàlla bañ lépp lu ma ko yéene ci lu bon yàlla naa ci jiitu wasalaam tëj suma téléphone. kàddu démb nag mënut a wutee kàddu tey téeméeri question réponse bii ngay am mooy suma xarit la lu mu wax dëgg la lu ci des nag caméra yi day fay internet yi jeex ñun ñaar xamante nañu Kali xam na ma bu baax xam naa ko. Mm-hmm. Hmm. Mm-hmm. tey ma ñëw ci lii mu wax aussi tamit ci wàllu soirée yi que ni daan nga toog Pape Diouf di la woy te man dama doon ñëw fii di def say live di déglu say live yaag Pape Diouf mu ni daan nga toog euh, Pape Diouf di la woy loolu am na wala amul te mosoo cee yor dërëm mu waroon jël ay 500000 di la jox am na wala amul. noonu laajaat ko ko rek moom xam na moom moo ko wax man mosuma ko wax. waaw mais yow yow yow yow mi ko seqal yaa a di ma leeralee tontu ko te du ma ko def ma ne la lu mu wax dëgg la kon loolu dëgg la. Kaliphone daal lu ngeen dégg mu wax ci man nam ko waxee noonu la amee moom moo wax dëgg mooy ku baax ki mooy ku yiw ki moo def lépp dafa baax ci balo la doon na wax tamit ni des fois sax da nga doon am jafe-jafe yi ay luyaas wala jafe-jafe yëre moom moo doon génnee alalam di la ko jox. lépp dëgg la amee nag amee xam nga amee nag mënuñoo ñëw fi amee nag nga dégg fi di ñu amee nag non lépp dëgg la man amee xàmmeetuma ko quoi. non non xam nga. waaw mais Ameth xam nga yow xam nga yow dafa am dafa am dafa am dafa am nit ñu la bëgg waxuñu pour dugal Kaliphone waxuñu pour jaxase leen. <coughs> mais dafa am nit ñoo xam ne dañu la bëgg. du uh-huh. dëgg kon tey jii ñooñu noonu bu ñu déggee lii il fallait que tamit ñu taxaw leeral parce que tamit Kaliphone mënul dugg ci kaso bi yow nga féetewoo wax ji Kaliphone génn di wax nga noppi. si si loolu àddina man am na nu ma doon doxalee ci mbiram moom ak lu dul moom su bi ñëwaatoon ma rectifier ko. donc njuumte ci àddina lum lay jàngal mooy su situation taxawate nan nga koy créer bu démb doon tey damay takkaat rajo yi ni moom di wax benn par benn te du ko weddi mais non non dem naa ba xam ne waxante lu ñaaw dontu ne dëgg nga wax bis dina ñëw nga rëccu ko. Mhm. bëggatumaa rëccu. Mhm. mais xam na ma xam naa ko. Mhm. li ci gën a neex mooy moom xam na ma man xam naa ko moo daan ñëw suma kër ñoo daan jëflante. mais billaahi wallaahi tallaahi ni mu toogee wax ne lii ak lii ak lii maa ngi xaar onetité ak dëggook màndu mu wax lépp te bum mu cof bu mu wecci su boobaa dama ko doon tàccu. kon daf la mais moom ci boppam bu caméra yi wàccee. Mhm. xam na ne li mu wax démb juum na. Mhm. soo ko delluwaatuloon temps bi du ko waxee noonu. Mhm. te wallaahi suma wallaahi ma waat ci yàlla mu bind suma bakkan. kalit dàqul ma wax ëpp ma fit gënul ma ëpp sañ-sañ te su waxee kilo maa ngi tonne mais lan laay gañe en tant que Cheikh Ahmed. Mhm. jéeri ma ca wàllu Alsane Samba Yacine si xëg suma moromi gor bés ñëw ma toog internet di ko wax lan lay gagné. Mhm. dara tama nitu intérêt la suma ma intérêt nekkul wax wax ci wax ji. Mhm. donc je préfère garder. kon mu mel ni dafa am loo ko xamal loo xam ni boo ko waxoon tey ji at tukki képp ku ànd ak doomi aadama bu mu mën a doon mu toog waxal la rek am na loo ko mën a waxal. Mhm. benn nga fen mbaa nga sos. Mhm. donc foofu lay waxee. mais est-ce jàppoo tamit euh, ni nga dundee ak famem ak werante yi nga xamante ni amoon na ci moo tax mu génn aussi tamit li ñu naan nedd ko bandum ànd ak ay famem ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw beddi la. su boobaa li mu def mooy dëgg ndax nit mbokkam man de mhm. su may mbokk laa jàpp. jàpp ma mbokk kenn te yàgg naa koo wax. bu àndeeki mbokkam. loolooy li war. te loolu la yonantu wax na ko jàpp foofu. mu mel ni man xamante wu ma ak mbokkam sequ ak ñoom dara dem lante ñëw lante wu man moom laa xam moom laa ko seqal. d'accord mu mel ni ñu bari ci sénégalais yi jàngat bi ñu am mooy da nga doon profité ci coow li pour jaayala say àndala buri say garab mën a defaale sa promotion. waaw loolu dama leen koy respecté toujours damay wax ma ne différence bi ñu am mooy dendul nangulante suñuy différence. Mhm. mais man may kan ba nit ñi waruñoo am xalaat ci man. Mhm. et su fekkee problème dafa am. bu ñu dellu ginnaaw tuuti. suma kër la Kaliphone xamee xale bi ñun nante leen ñun leen nampaleur xam nañu nu ñuy jaaree ba nàmp donc li gën a nice te jaar yoon mooy Cheikh Ahmed xale bi dama ko bëgg a seex nga laaj ma su munee nekk man maa xam su mënul nekk ma ne la bàyyil mu sedd mais ba ñuy jëlante numéro yëguma ko boobu ana suñ xaritoo mhm. bi mu koy invité fii la ma bàyyi suma kër waxul ma dara ana suñ xaritoo bi mu génnee ci biti am problème woo ma su ma neexoon toog parce que xewewul suma kër te mbiri góor la ak jigéen te coow a ngi am mais guddi googu trois heures dama bàyyi sumay soxla suma itte dem ci moom ba may dem fekkee naa ko téléphone pourquoi vidéo wul ajaa caare dafa xaar ba ma dugg ci oto mu taxaw ci biti vidéo ma lan la ci namoon ñu jógee foofu bi mu koy partagé maa ngi waxtaan ak moom waxut ma ko partagé na ko Gabriel Kane Mati Tourapom ak ñeneen ne partagé leen ko nit ñi gis ko lan la ci namoon bi mu amee waxuma dama ko woo téléphone na ko lii nga ma def métti na ma ndax bi may vidéo yëgu ma bi nga koy partagé yëgu ma te waxuma ci dara dimbale ma ñu dindi ko ndax bëgguma bokk ci coow li. man Kaliphone moo ma dugal ñaari yoon. moo ma oo moo ma vidéo moo ko partagé. Mmh. bi ma ci duggee. Euh, bi ma dugalee ci coow li ba ma dugg xas naa dugg mënuma cee dem kaso ay maa ko génnee fii c'est impossible ma dugg ci kaso mënul nekk. Mm-hmm. mënul nekk ci zaahir mënul nekk ci baatin. Mm-hmm. lu leer laay wax. waxoon naa ko ci suma interview ma ne leen xaw ma dinaa dugg kaso wala déedéet xaw ma ci dara de mais bii duma ci dugg kaso. Mm-hmm. léegi coow am na. eew ma ci ma woo su may rakk pour ñu négocier Californie na ma su yónnantu yàlla Muhammad wàccoon du ma négocier. ma ne ko li may bañ mooy yaa ngi toog fu nekk ne Ousmane Sonko violeur la te yow xam nga ne violé wul Adji man xam naa ko Adji Sarr xam na ko lii laa ko wax ci fajar gi. ma ne ko fu ñu la tuddati tudd coow li loolu laay bañ mu ne moom négocier ma ne ko kon génnal waxuma ak yow ma oo su may rakk. Mm-hmm. waxtaan ak ñoom pour bugguma coow li jóg. mais bu coow lu jógee ba pare am na lan laa war a def dama war a toog noppi nit ñi di ma mbàcc mbàccee di mbambu. Mhm. man situation bu yàlla teg suma kanam jëriñoo ko. Mhm. su ma taalee ñëpp déglu ma wan leen li ma bëgg ñu dégg mooy sumay garab Californie mu génn dóorante su nekku ci. Mhm. lépp lu ko jigéen def ba mu dóor ko jigéen def na ma lu ko raw te dóoruma. ndax xaw ma nan la ñu war a mun a dóoree jigéen xaw ma ko. lu dul fóon la raay la teral la. rëkk la rëkk yu baax man xaw ma nu ñu war a dóoree jigéen franchement xaw ma ko. Mhm. donc man situation bu nekk dama koy utiliser. Mhm. man parce que loolooy àdduna yàlla daf lay natt mu xool nan nga koy nan nga koy dundee. Mhm. you ñaata nit ñoo musa ñëw suma kër ci àddina. kan moo ci am problème mu jigéen. kan moo ci dóoranteeg jigéen. Euh, sénégalais yu wax loolu dama leen koy respecté mais tey bu ma Macky Sall woon sax bu ma taxee dina ko ne président est-ce que ñam nga àndala mhm. parce que àndala mooy suma teraanga te nit soxlaam. Mhm. léegi li lay wan ne nit soxlaam. Mhm. foog nga ne kanami Adja Thiaré bi nu mu mel noonu dóor yi ko yaayam doon dóor moo ko def. non non foog nga ne dóor yi ma dóor ma fayu benn moo ko def noonu déedéet kon pourquoi nga tudd suma dóor donc wax nañu dëgg ah. caméra bii nga ma taal sa bala ngaa pare ma tudd ci àndala nit soxlaam. d'accord te man nitu intérêt la. kon na nga jàpp ni dóor yooyu euh, kanamu Adja Thiar bi ni mel euh, dóor yooyu Kaliphone moo ko def. jàpp ma loolu looloo am xam nga mën nga jàpp lu nekkut. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. Mm-hmm. lii mooy li am. Mm-hmm. c'est ça. d'accord Ahmed mu ngi commencé mu ngi ñaaw de. non du musa ñaaw. Mhm. non yàlla tere yow tamit man dama am dal ci wax. Mhm. kon yow daal euh, boo gisee dossier bi ni nga ko doon waxee ak ni ñu ci doon témoigner da nga ko doon plaider pour suturaal ko mais li ñi doon wax ñëpp dëgg la. li lan. li nit ñi doon wax yëpp Kaliphone na ko dóor Kaliphone ko lii kon loolu c'est vrai. li nit ñi doon wax yëpp mënumaa wax dëgg la xaw ma lu nit ñi wax mais li ngi fekkee mooy dóor yeeg yooyu. nit ñi doon wax yëpp mënumaa tontu loolu parce que xaw ma lépp mhm. mais dóor yi moom. Kali xam na ko Adja xam na ko ñun ñëpp xam neen ko. Mm-hmm. mu ne daf ko màtt mu dóor ko bi ma ñëwee dama leen fekk ku ne nàcc lu nàccal Adja Kalifon lu nàccal Kali Adja ñoom ñaar mm-hmm. te lii laa mos wax mosuma changer discours. Mm-hmm. du yokk ma wàññiwu ma. c'est ça quoi. kon daal sortie bi nga xamante ne nii actuellement def na ko waru ko woon li waroon mooy bu génnee ni la jërëjëf. noonu moom moom moom mooy seet li ko war rek. Mhm. mais man du ma doom ju naqari ndeyam de. Mhm. Mhm. te ko seetu laa yor xam nga damay de dinaa defante mais à ma mais xam nga tamit. du ma bàyyi mu sedd de. mais à façon mais nii nii. corps à bi non du ma kali tamit loolu du mën a nekk suma xarit la nit ku baax la. ah mais Ameth xam nga problème bi. luy du <laughs> corps à mais yow bi kali nekkee chaque jour. ah man na mosuma la dékk micro nga wax ci Kali lu ñaaw kon tey Kali bu génnee di teg kàddu yi sa kaw c'est normal tamit wedd dogal sa sa der la. mais du cadre corps à corps. xam nga tey dafa am weddi yoo xam ne temps la. Mm-hmm. da ngay bàyyi temps mu weddi. Mm-hmm. dafa am yoo xam ne acte moo koy weddi. dafa am yoo xam ne temps la da bàyyi temps bi bu yeggee rek dinañ xam lan mooy dëgg am na weddi yoo xam ne acte moo koy weddi mais du nga ne ma ne nit ñi di ñuy seetaan ak a déglu. loolu duma ko may àddina ndax dañu séq lu pire loo xam ne jabaram du ko xam ci àddina mbokkam yi duñ ko xam doomam yi duñ ko xam man it suma waajur duñ ko xam te ñun ñaar a ko séq donc loolu noonu bi mu doon wax dem maa ngi koy xool di ko déglu. te ku may déglu kali te ku gis sa kanam ak amee ni ko daan fekkee affaire bi daf la daf daf la métti franchement. non daf ma naxari. si sérieux daf ma métti mm-hmm. trop trop mm-hmm. trop trop. Mm-hmm. mais boo meree nag ci ngay wane yaay kan. su du doon yéen du wax ah. parce que man su ma meree du may maanaam mer boo ko soppee wax dafay nekk géej nga lab ci. boo ko hmm. soppee jëf mu nekk gaynde lekk la. man na naqari daf ma teree nelaw. Hmm. bu baax. Hmm. mais après yow nag yaay xool ban buntu ngay jaar. lan la gën a métti ci wax ji. lépp ah. everything lépp daf ma naqari fu mu commencé ba fi mu daanelee daf ma métti. li ma gën a métti ci wax ji mooy bu demee bay wax mënoon naa wax li am. Mhm. mais sélectionné lalan neex ak li nga bëgg a wax ak ni nga ko bëgg a waxee. li mu wax yëpp ci luñ seq 10 pour cent la ana 90 pour cent yi. mais nag ça va quoi. d'accord ku gis sax moom tamit kàddu yi nga xamante ni yëkki na ko yëkkati na ko ak ni mu ak ni mu ko waxee mu mel ni moom tamit. Mhm. daf ko waxee ak mer. moo xam ma mhm. man ma mënuma ko tontul mais man suma bopp laa mën a tontul xam naa ne daal métti na ma. naxari na ma. man lu ma nit wax du ma naxari. Mm-hmm. mais su ma la xamee bañ seq ko benn kàddu rek daf may métti. dama mm-hmm. dama woo suma benn xarit Aïda Touré ma ne ko dama stressé ay 3 heures 4 heures. Mm-hmm. mu naxari ma. fam toog di wax ne benn 100000 ba ma lebaloon ci saa si laa ko ko wéef na ko jëlal ma fay la. ci ma ko fàtte woon ci biir plateau bi laa ko wéef. ma ko jëlal dama ko fàtte woon. c'est ça daf ma métti. torop torop torop. trop 500000 Pape Diouf yi. non yooyu moom awma ci kàddu mais bor fay. Mhm. te daf ma lebal dëgg la fay naa ko ci saa si mais yeneen yi ci des non duma ci tontu. Mhm. Mm. mais tamit yaa ngi xaar bientôt mu ñëw seet si la ngeen toog waxtaan trouver solution. non amul solution bu ñuy trouver ak bu ñuy trouver solution bi trouver neen ko suma xarit la wax na ma lu ma naqari muñal naa ko jéggal naa ko surtout. Mhm. jaratul lu ñuy trouver. Mm, c'est ça. tey daal tey daal man daal tey daal sama xarit xam xàmmee ma ko quoi vraiment sama xarit dossier bi ni mu ko yónnee woon tey ma ñëw amet amet fair play nii. <laughs> non xam nga jamono xeex xeex la. Uh-huh. Mm, xeex naa li ma mën. d'accord. te yàlla xam na ko te uh-huh. yonantu xam na ko. Uh-huh. donc tey nii la demee. da ngay utaat beneen buntu. mais Ameth nag fan yii dafa mel ni man ci fan yii ni ma la déggee ak ni ma lay suivre Ameth fan yii man dafa dama xamul Ameth dafa jot ay menaces parce que barki démb rek maa ngi gis mu naan non man Ousmane Sonko dooru ma waxati ci ay dossier am Ousmane Sonko pare naa ci ay mbiram Ameth daal fan yii dafa jënd glace quoi xam xam nga géer bu rëppee ci xare luñ ko jiiñ mu xeeb. Mm-hmm. waaw man dama am baatin. Mm-hmm. su dara waree ñëw dama koy xam. Mm-hmm. su ma ko xamee nag. bu ma neexee ma dem fekki dogal yàlla ni mu ko bëggee mm-hmm. su ma neexee ma saraxe ñaanta moytu mm-hmm. euh, suma niveau mayut ma ma war a dugg ci yenn erreur mm-hmm. man bokk ma ñuy waxal APR di ci yaakaar dara mosoo maa gis ma gërëm kilifa APR you ci lu ma defal personnellement dew ma seeni bureau soxlawuma leen wax ci Ousmane Sonko nekkatul suma intérêt mm-hmm. ma bàyyi ko lu ci bëri nekkuma ci te tey yàlla def na ci man loo xam ne ci expérience ci xel ci xam-xam ci fit ci fulla ci fayda ci bëgg lu baax ak xam lu baax am na lu may organiser war a dimbali nit ñi ci lu bëree bëri mm-hmm. organisation boobu laa jël mm-hmm. te nit ku munti doon ci àddina da ngay jaar yoon nga dem ba mu yàgg mu leer la ne fii du yoon bi. bur xaal ku la wàññi. dëpp yàqul ndigal jaan. Mhm. te olof mu ne ku dem ba xamoo foo jëm dellul fa nga jóge loolu benn la ñaareel ba nit day xam askan xam ni mu war a communiquer ak ñoom lu ne mu koy wax ci temps. Mhm. même bu ñëpp d'accordul ak moom bu ñëwee ba ci kanam dañuy xam ne ah oh oh, oh, oh. gaañ bi intelligence la utiliser mais ça donc man lépp lu may def. Hmm. wala ma koy wax waxuma lu ma bett de ndax doomu dama loo mën a doon ak loo mën a xam foog am lu la bett ndax nit nga. Hmm. waaye su ma dara bettul ma tëgg ko xalaat ko ba pare. Hmm. noonu dama ca bëgg a doxe laa cay doxe ah. Ousmane Sonko du dama ko bëgg pour dem ci moom Pastef àdduna neexul naqariwul guddul tànk ba ma bokk Pastef ci àddina. neexul it ba ma ànd ak moom. ndax bokkuñ li ñu gëm bokkuñu yoon. munuñoo ànd. mais nag boo nekkee ci mbir dem ba gis ne lii lor la la gën a bëri ci defal la lu baax. <laughs> doo ko baax. da koy bàyyi. d'accord man societé laa am. dama soxla askan bi soxlawuma ñii ak ñële nekkuma fi di duma politicien. d'accord donc damay arrêté. c'est ça. mu mel ni ñu ngi may signaler nii liñ ma mayoon ci waxtu daanaka jeex na tey nag man sama copain man xamee ma ko te am daa ñëw lal mbalaanu wasifa bi. lalu weexam woote jàmm ak ambiance <laughs> amee dañu lay bàyyi nga tàggatoo ñi lay suivre fii ci People 221. Euh, li may tàggatoo mooy suma garab yi nga xam ne. <laughs> àdduna yëpp yëg neen ko xam neen ko muy garab yoo xam ne dafay dimbale doomi aadama. Idi Idi nga naan bañal mais xam nga ni. andala andala non mais bi ma bi ma woowee ci suba gi. <laughs> daf ne ma maa ngi ñëw ñu liggéey ndax professionnel la mu ñëw indil ma waxi Kaliphone ça veut dire que intérêt moo ko indi ci man mais ma tam ba wax suma intérêt parce que àdduna yëpp parce que àdduna yëpp mhm. euh, séddoo la mhm. ndax suba teel bi moo ma yee suma laal <laughs> joxul ma ndékki fayu ma waxloo ma ci suma mbiru bopp ngir sitam na ma may ci sitam ma wax ma nit suma mbiru bopp loolooy àddina suma garab yi àndalaa buri mooy bi tëj garab yi vingt cinq mille franc lay jar ndox la boo ko naanee dangay yëg sa bopp dafay defar nax defar infection dafay defar koddal bu dëgër dafay defar koddal bu nooy dafay jox dafay dimbale ki nga xam ne du gaaw a koddal moom vingt cinq mille la numéro yu baax yi moom leen affiché nii mais damay waxtaan si sumay garab xam nga bi may wax ci Kaliphone tudduma koo dal moom soo si bëggee am numéro yi affiché ci ngay woote bi gëna a doy waar nag te ma tuddee ko doy waar mooy buy jar 10 000 bu ma kenn woonee wàññil ma man suma garab gi prix pharmacie la amul waxaale amul wàññi amul yokk te la ngay jënd ñu ngi ko bind ci pot bi nga jënd doy waar mooy constipation ak dimbale góor yi kéemtaan bi nag mooy régu moom la nit ñi di coow léegi tubaab bi mën nañoo ñu ngi tax nit ñi ñuul ñi amuñ ko mooy bi nga xam ne dafay guddal kooy di ko réyal su dëngee mu jubbanti ko ba pare daf koy def kooy bi gën a saf gën a neex ndax dafay soft xam nga deri kooy bu nooyee rek ba pare siddit bi dëgër bu duggee da ngay am ax am naa euh, bi nga xam ne ndey rama leen ko tuddee pour fees la ak ween ku ci nàmpal ba say ween daanu say ans demee boor nga bëggu ñu dajaloo nekk forme bu baax neex ci man ngay ñëw ma jaay la donc suma garab yaa ngi noonu ñetti numéro la léegi numéro yi affiché képp koo ku ci woote ki nga mënti jot rek man la su yeneen partenaires yi nag ku la ne man lay jaayal balam laa jaay na ko ne dama bëgg a dégg cheikh bi su ma mbëggeel ci xaalis toll na foo xam ne ku ma woo ngir xaalis dama lay wuyu. donc maa ngi gërëm di sant sénégalais yëpp euh, képp koo xam ne dang ñu bëgg te am ci ñun cofeel maa ngi lay wax jërëjëf képp koo xam ne dang ñu bañ wala dang ñu comprendre wala dang ñu réere maa ngi lay masaw di la sant nga muñ te di ñu ñaanal yàlla wal aqibatu lil muttaqin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 wala nga def 77 285 38 38.